li nga xam ne mooy parrainage bi yaakaar naa ni chef de village yi bari na ci ñoo xam ci ni ay acteurs politiques lañ bari na ci ñoo xam ci doonuñu ko waaye ñàkk a doon acteur politique terewul nga mën a parrainer ndax ku xam ni chef de village nga wala ab chef de quartier nekk ca gox ba nga nekk bu yàlla dogalee nga déggoog saw askan bu ñu la paree lanoo 100 ou 200 personnes wala 300 jàpp naa ni mutulam xëy baam ngont bu fekkee ni na nga xam ni war nga koo taxaw askan wu taxawee yaakaar naa ne li sëñ bi di santaane lu mënu la. am na sëñ Ladde sëñ am sa nee na lépp loo nekk danañ ca nekk danañ futteeku taxaw ca koñ ba mu sol mbubbam ñu takk suñuy dàll ànd ca koñ ba ba dajalee lépp luñ jël signal la ko ba ñëw yët la ko. mais tey fii ñu leen yi wax tey yii serment bureau département Mbacké mu ngi ci ginnaaw Abdou Lahad Diakhaté ngir parrainer la président Macky Sall fas nañ yéene tamit.

danoo toog danoo liggéey ba traité toog di yëngu ci politique tam nag yëngu bu yëngu bi nag génn suñ bokk ndax fee sañ ci sañ Saliou maa fa yóbbu ndox bailleur de fonds berger gi ñoo ma ko defal kenn defaluma ko du chef de village du kenn ku nu bëgg xam nag daf nu xam man di bis ñi tey li ma mën a waat ci maam Cheikh Ibrahima Fall ma yaakaar man nun amuñu ñaari wax dinaa ànd ak yow ca dinaa la pare parrainer lu kenn mënu ci liggéey bu sell bi danañ ko def suñu yàlla yóbboo ba ñu àgg fa ñu ne ñañ war a dajeel danañ dajeek ñoom teela waxtaan ak ñoom teel a xam nañuy def ba saa soo ñu contacté wala say ndaw ñëw fekk ñun ñu daal di mën a pare ñu daal fas yéene daal jàppale bu wéri wéri kon nag ñun loolu mooy suñuy kàddu rek ñu ko ci ñu ko ciy boole di santi ñëpp di gërëm ñëpp loolu mooy loolu di parrainage bi ndax muy woote soo demee nee ko man fekk na moom lañ naan soccet moom bankoon na ay tànkam ba jóg nee na it bu ma ñëwee naa la wax ne la moom danga nga koo jàppale ci lim yor ba xam ko moo tax lépp loo xam ne nii yow joxoñ nga ko loola moom fas yéene na ànd caag yow loolu la ma waxoon naa la ko wax bu ma ñëwee. di sant tam kilifa yi nga xam ne ñoo nu yilif ba gisaluñ ci liggéey bi di sant nag président bu baax. ndax bu jëlee cër bi mu jël jox ma ko du pour man donc def na ko ngir facteurs yi facteurs yu bari bokk na ca mbooloo mi nga xam ne noo bokk ànd liggéey bi mu agsi fii kon loolu fierté la ci man mbégte la ci man ma woon ak ñoo ma ko séqal jotu leen message boobu gërëm leen sant leen loolu mooy premiere li waral woote bi bi ci si itam mooy prénance bi ñu dëgmal ñu fexe ba kenn bañ ñu ci ëppale ndaxte kat bu bu ma choisiree am na lu muy natt ci man la muy natt nag bu ma soñoon ñi ma ko seqal jàppale ma ci ba ma mérité natt boobu. engagement yi ci wax yi ñëpp dégg nañ ko kenn ku ne yaa waxal sa bopp un à ñu jël suñu temps jox ñëpp kenn ku ne wax wax boobu nag du waxu du wax boo xam ne wax bu ñuy sànni lii rek ñëpp dégg ko déedéet ndax ñi ko doon wax ay responsable lañ ay mukallaf lañ ay kilifa lañ kon ñun duñ dul compter. gëm wax jooju te jàpp ne dana am nañ ko bëgge li ci des moo ngi la li nga posé léegi mooy récompense politique ñaar rek la récompense bi dafa jiitu effort yi war a am ndax kenn ku nekk ci ñi fi daje ci ñaari at yi ñu génn ci veeyu màggalu Tuubaa teraanga président Macky Sall ñëw na ba fekk la fa nga ne jaarale ko ci man ma jobbal la ko kon nag bu ñu demee tey ba soxla man je suis le premier pour engager ak ñooñu nga xam ne seqoon naa ak ñoom mooy récompense baabu te loolu kanam la jox incha allah.